di wax loo xam ne day concerné ñi nga xam ne ñu occupé woon site bii ñu wax marché Sam nga xamante ne ñun ñi fi nekk di jaay muy soble di jaay ko du pomme di jaay ko di jën di jaay ko du këriñ ak ñi nga xam ne dañu yor sax ay pousse pousse di daan seen doole nga xam ne bu ñu ko doon estimé ay centaine de personnes ñoom ñoo fiy liggéey. a ah fan yii nag jotoon nañ benn benn rumeur ñu ni dañuy ñëw déguerpir ñi fi nekk jour boobu ñun ñëw nañ fi bi ñu ñëwee toog ba Dakar ay nervi lañ dem recruter bi ñu yëgee ni ñun toog nañ fi pour xaar leen ci lañ dawaat. biig nag dañu toog ba ay côté ver euh, minuit minuit cinq la ñuy informé ni ñu gardien yi fi nekk xamal nañu ne carrément kat ay GMA ñëw nañu fa wàcc ci ci site bi pour ñëw pour def seen bëgg a dëgër ci lañ daw ñun ñun ñëpp jóge suñuy kër mooy responsable mareyeur yi mooy ki nga xam ne jaay këriñ muy man muy keneen daa daw dikk bi ñu ñëwee tam amuñu woon accès sax pour dugg ci biir place parce que dañu baare woon fépp fu ci nekk dañu dem côté bu ñu ne ñu jël 100 mètres avant ñu baare ko bi suudi weeru minuit lañ fi ñëw ñun minuit lañ fi ñëw bi ñu ñëwee côté bi jógee préfecture tali bi jógee mairie jaar préfecture dañu baare buntu préfecture lañ teg barrières yi ñu jël Amadou Niaye Sow ñu ñëw ci sortie bi rond-point Jaxaaw ñu teg fi ay barrières ñu jógee rond-point 500 dëjë ca kaw ñu teg fi barrière ñu jógee Jaxaaw tamit boo jógee Jaxaaw di ñëw boo passé pont bi dañ fi teg ay barrières dañu mujj man dama mujj jaar euh, côté Palais des Arts biir dixième laa mujj dugg pour jéggi raay bi pour mën a exit si sama biir place bi ma ñëwee tamit fekk naa ñoom ñu coupé lampe yi di monter seen projecteur mais à la fin mujjul am ñu mujj basé wu ci lampe bi nga xam seen moom ma fi nekk. wax dëgg yàlla noonu de lañ def kenn ku ne nag sa frigo defoon nga ci ay jën kenn ku nekk da ngay ñëw fii di daan sa doole ngir sa njaboot di fi di di di fi jëlee di yóbbu sa kër ay néew di doole nag ñoo fi nekk muy man muy sama moroom ñu leb nag ci banque yi di liggéey. dégg nga ñu jël sunu suñuy jën tey jii moxañe ko dañ ñoo jaay doole ëpp ñu doole waaye yàlla moo leen ëpp doole. am nañu naqar xol boo xamante ni ñoo wax ndax koo xamante ni fi ngay xëy di suturloo xëy fi nga suturloo ñu toj ko ci yenn conditions yoo xam ne dara baaxu ci loolu wax dëgg yaay métti la métti na trop trop fii li ñuy wax moo fiy dund ëpp na ko sawaay fi borom pusu fi lay dund borom kat bi fi lay dund détaillé kat bi fi lay dund. ki yor engrais fi lay jaayee xool li nga xamante ni ay nit ñoo xamante ni tey état moo leen waroon liggéey utal liggéey ñu dem jël xaalis yi banque ñiy leb xaalis ñëw dem jël seen i jën def ko fi ñu xëy toj ko am na jigéen ñoo xamante ni tey wallahi boo ñemee ci ñoom seen sa yaram day daw démb lañ jugee voyage yëpp seen i firigu ba ñu xëy ci guddi gi toj ko ñooñu fu ñu jëlee woon xaalis bi yaa ngi ko joxoon bu fekkee dañ ko leboon tey dañuy am problème. lii ñu def tey ay ndaw ñoom ñëpp dañ fi ñëw di daan seen doole ñii dañuy waas yóbbu seen kër ñii dañuy jaay jën yóbbu seen kër ñoom tey jii ñu xëy toroxal ñu nii yàlla nag lañ leen bàyyeel yàlla lañ leen bàyyeel de dañ ñoo toroxal ndax lii jaay doole la ak ëpp ñu doole moo tax ñu def ñu nii. fii boo waroon xayma ci ay commerçant yi fi nekk da ngay wax rek ba sonn bàyyi ay centaine de centaine de personnes ñoom ñoo fiy xëy du ay ay 400 yi ñu wax ay 2 800 personnes du loolu rek nii nii rek. daf lay woon carrément ni kay am na confirmation bi wane ni ñi fi doon daan seen bopp ay mille de mille personnes lañ léegi nag ñi fi yoroon di daan seen bopp xalaatal ku ci nekk ñaata nit a ne sa ginnaaw yaakaar la boo amee sa dépasse ñoom nga koy dem joxe ñaata père de famille ñoom ñoo fi nekk ñaata jeunes yu bëgg a créer dara ëllëg ñoo fi nekk loolu ñoo ñëpp nga xëy tey yóbbu leen di semence loolu pour lan la tey li ñuy bañ ñoom bu dee dafa am lu ñuy bañ jàpp naa ko boog loolu moom mooy mujj am mooy lan anarchie bi ñuy wax day am encombrement dafay am parce que tey xoolal ci raay bi la nit ñi di jaayee te bu ñu fi jógee ci kaw tali bi lañ jëm rond-point jaxaaw jëm tey bu baax dafa indi ay jafe-jafe yu bëri moo xam baas bi daan jàll nga xam militaire bu ñu amee soxla dañuy jàll pour dem ci biir dëkk pour intervenir dootuñu ko mën moo xam élève bi nga xam dafa war a jógee këram pour jàngi ci ci école bi nekk fii dootu ko mën parce que moom moo tax te loolu yëpp nag war nañ ci bàyyi xel moo xam hôpital 502 la nga am urgent mënutoo dem moo xam sapeur la bu waree jaar mënutul dem te li ñu waxoon fii nii dara amu ci bañ ko njëkkee yëg góor ñi ñoo ñëw fanaan fii fa seene koo jàmmaarloog ñoom waaye bii dañ ñoo bett man 4 di du matin lañ ma woo fekk na fii yàq nañ ko bu yàgg ravagé nañ ko boo mu set wecc fekk na fii lu fi waaye amoon man sama fu ne fu ne jaabante naa fa dem xool ñu naan frigo yi fee lañ ko sànni fu ne fu ne dem naa fa pour xool fa ñu njëkk a naan moo xañe gisuñu fa dara man yàlla rek laay waxal ay kees dañ fa jële ñetti xotti kees gisuñu fa lenn nag te kenn ku ne sa frigo da nga koo duyoon jël xamuñu noo ko lijjantee ba duy ko fa ñu yóbbu lépp gisuñu dara fi réew fi réew mi tool am na loo xam ne xajul ci réew mi waxoon nañ leen li xew mbuur bërki démb xew seelu yu bërki démb mën naa xew kees te waa kees nag duñu ay yaafus duñu ay ragal mais am na lu ñuy bañ ñaata personne tey mooy perte fii tey ñaata nit moom mooy dem taxawaale ji tey lan la ñuy bañ mooy képp kuy wax lu nekkul dëgg képp kuy sàcc képp kuy jaay ne ko su mais est ce nit ñi duñ fa dem ñu occupé site bi da nga leen di woo concerté wu ak ñoom d' abord ñu bëgg ak yow li nga nar te mu dëggu ci yoon nga xool ni carrément ngeen fay jógee mais anam bi ngeen fiy jógee su ngeen fi jógee fii ngeen jëm loolu la ñu xam ban waxtaan ba tënku ci mais loolu dara amu ci site bi ñuy wax ne fa la ñu a dellu yóbbu nit ñi ku fa amoon sa xar ñoom doo ko fa yóbbu ñoom ñii kilifa yi laa moo xam préfet la moo xam maire la ak comme ci mën a doon doo ko fa def dañ fas yéene jàmmaarloo bu bëri commencé gunde parce que démb dañ ñoo bett mais tey jii duñu bett te tey am na lu ñu nar te incha allah rab danañ ci dem ak ñoom ba mu saf